gën a intéressé Sénégalais yi pour ma mooy OFNAC Macky Sall moo ko créé woon. Mhm. ñoom defoon nañ ay déclaration de patrimoine léegi Macky Sall jóge na fi. Mhm. mais ñun rapport boobu lañ gën a soxla. maanaam maanaam par exemple Mansour Faye bi nga xam ne defoon na déclaration de patrimoine au temps de Macky Sall. Mhm. léegi seen régime jeex na defaat na nañ ñu wax ñooñu seen am-am nu mu toll. est-ce que yokk bi mu yokk est-ce que c'est raisonnable ou non. te loolu c'est valable. Mm-hmm. ci ministre yëpp ci DG yëpp ñi jiite ñi jiite woon yëpp parce que ñun ñëpp gis nañ ni. Mm-hmm. ci réunion Macky Sall. Mm-hmm. da ngay gis ay sénégalais loo xam ne vitesse d'enrichissement d'enrichissement bi seen vitesse d'enrichissement ni mu ngandee ni mu grave. te loolu dafa grave loolu day décourager population. loolu day tax nit ñi. dañuy dañuy dañuy xaw a fainéant. man su fekkee maa ngi gis soxna Yacine. maa ngi xëy mu ngi xëy mais moom chaque deux jours mu jënd terrain tabax. Mhm. te man 1500 laay am wala 3000 francs laay am par jour damay découragé damay mujjee toog dama naan kii du ko dab parce que état d'esprit yi tolloowul. dëgg donc kon nañ ñu wax rapport bi. ñooñu. parce que loolu day day dem ci campagne reddition des comptes bi rek. Mhm. ñooñu la ñu amoon avant ñuy dugg ci nguur gi. Mhm. tey génn nañ ci nguur gi nañ ñu wax lu ñu am lépp ñaata la. Mhm. te loolu bu ñu ko yemale si rek ñi nekkul ci nguur gi mais ñi transjugé. ñi def transhumance yëpp ñëwaat. nañ leen si boole parce que man balaa may gën a kontaan ñu seppi ku mel ni Mary Teuw Niane ku mel ni Mimi Touré ku mel ni Serigne Gueye Diop ak et cetera Omar Samba Ba ñi nekkaat si ñoom. ñooñu tamit dañ dañoo war a bokk ci reddition des comptes mais li ma lay dolil mooy. mu olof day wax ni wat gaal yóbboo yóbboo dëgg la wat gaal yóbboo mm-hmm. mais sëriñ Bassirou Gueye lu muy def OFNAC ba léegi loolu loolu xe yenu xel xel nanguwu ko parce que mook Sonko daman tamante dëmm ci la ñu dëkkoon kii naan ko lii kii naan ko lii léegi ñoom tey ñoom nan lañ mën a bokkee gouvernement bi loolu lu mu mën a nekkee te Sonko mooy chef di gouvernement mm-hmm. te OFNAC mu ngi sous la tutelle du léegi loolu nan la mën a nekkee man mënumaa comprendre loolu pour man heure bii ba Bassirou Gueye waroon na commencer tamit di rendre compte te moom kaa am ni mu gën a critiquer mooy ci justice la féete woon mhm. ci jàpp doomu aadama yi di leen tëj mhm. ci la féete woon te yooyu yëpp dafa war a dafa dañu war a leeral mhm. dañu war a leeral mbir yooyu euh, bon je pense que c'est bon c'est bon c'est bon euh, yaakaar naa